xamante ne moom la ñuy waajal. muy les mille deux cent prises de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la. parce que njëriñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le février. place 5 koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi a application bi gën a pour protéger sa ay données sa ay contacts sa ay photos vidéo heure boo tegee sa téléphone di ko chargé photo bi ci sa mail bu ñu sàccee sa téléphone wala sa téléphone réer abbal téléphone nga yónnee message ci sa numéro de téléphone ñu daal lay yónnee localisation am di koy def contrôle à distance daal di lay déclencher sirène bi muy loo xamante ne nii nag boo ci bëggee am ay yeneen leeral da ñuy woo ci 77 149 04 08 le prix est fixé à 1000 francs CFA seulement waaw tey ñu ubbeekoo suñu journal euh, suñu làmb mu xëy jagleel ñu Alioune Sarr mu nekk ci xët journal bi Alioune Sarr nee na saa yi jàkkaarloo ak Yékini bokkal luñ ci wax ci loolu. waaw mu mel ni daal Alioune daal li démb la bi nga xamante ni day conférence de presse bi mu woote woon démb fële sa maison de la presse journaliste yi woon fa lool lool lool lool. mais à chaque fois que je de Yékini loolu Alioune wax mu mel ne daal am na lu mu bëri bëri bëri lu mu wax si Yékini waaye daal li moom daal gisul benn yoon euh, maanaam si ñu indiscipline wala yu demee noonu si Yékini maanaam heure bu jàkkaarloo ko moom mosul gis Yékini won ko wala wala jëf jëf joo xamante ni day si moom maanaam jëfu yaradiku wala jëfu jëfu indiscipline loolu ay waxi Alioune Sarr la Pape waaw léegi ba léegi wax na si mu jàpp na formation liggéey bi na seen rek moom Alioune Sarr depuis 1994 moom moo jiite CNG boobu ak léegi yàgg na loolu loolu xam naa war naa mën a def ay 26 ans yu def noonu yàgg na daal li leer ba leer bokk na si ñuy part si si ñuy si ñuy formé si ay waxam bokk na si ñuy formé Yékini Tyson euh, Eumeu Sène loolu ay waxi Alioune Sarr. waaw ba Bombardier waxee tamit moom it tontu na ko nee na tamit du Bombardier ñu waxi départ. waaw nekk daal du daal moo moo fi jëlee CNG def na ko sax ba ba jël si benn exemple démb bi maa nga fa woon que ne tey ne nekkul à Neymar ne moom mooy wax ne na président fédération brésilienne bi jóge foofu noonu loolu noonu daal ay waxi ay ay wax ki nga xamante ni tey. moo di docteur Alioune Sarr la mu ngi si biir journal sunu làmb waaye daal leneen ak leneen loo xamante ni daal wax na ko si biir journal sunu làmb ku jënd journal bi nag yaakaar naa ne di ko dinga ko di nga ko gis si biir journal bi. waaw ñu suñu jigee foofu ñëwaat tamit si Bombardier moom it mu ngi waajal combat MMA ak ki ñu wax Pod Mor nee na wàññi na ay kilos yu bëri. waaw wàññi na ay kilos yu bëree bëri bëri moom Bombardier si combat MMA yaakaar naa ne bi mu moom ak Rocky Balboa woon waaye nag fi mu toll nii nag ñu ngi waajal prochaine combat bi nee nag fi mu toll nii moom wàññi la lu war a mot si 17 kilos loolu moom yaakaar naa ne liggéey liggéey la laaj pour mu wàññi kilo yu toll noonu waaye tamit li si jublu rek maanaam mooy gën a gaaw yokku rapidité am loolu ay waxi Bombardier la. waaw ñu ñëw si drapeau Ismaïla Madior Fall ca Bargny. kii di fils de Zallo moo koy bëri ak Aboy. waaw fils de Zallo ak Aboy ñoo ko war a bëri le 4 avril la war a doon incha allah rek bu ñu maajee ba pare añ ba suur kii di kii di Ama Evans wala nga ne rek Boubacar Niang suñu suñu naataango boobu noonu tey moom moo tëggu combat boobu noonu fas yéene fas yéene ko jaglele kii di nga xamante ni tey moo di Ismaïla Madior Fall fële ca Bargny lay nekk le 4 avril incha allahu rabi. waaw CNG de léegi dañoo bëgg a tëgg làmb làmb roi lañ bëgg def chaque année boo xam moom lañ bëgg a def léegi bookar loolu noo ko moom ba léegi rek Alioune Sarr na loolu lu bëree bëree bëri si làmb ji wax na tamit si CNG bi wax ni moo di roi des arènes bi CNG jàppul wala benn yoon roi des arènes kon CNG reconnaîtreul Modou Lo nen nag mbër yi bu ñu bëggee mën nañ leen organiser benn tournoi boo xamante ni tey dañuy boole VIP yi waaye waaw dem na si nag ba wax ne maanaam buñ leen tëggee tamit du doon ay cachet yi nga xamante ne nii tey xam nga ay cachet yu ay cachet yu ngandee yi ngir ñu a xam kan na ba léegi jam nam na ko moo tax déposé na recours moo tax mu bëgg déposé di manager am déposé moo tax mu bëgg a déposé recours am na si droit man daal loolu laal na ko waaye contesté wala di di xaste wala ngay wax la warta wax wala ngay def lu warta def ba ñu la ba ñu lay aj ñu lay aj wala ñu lay sanctionné loolu yaakaar naa ne nekkul loo xamante ni tey lu lu lu jaadu la déposer recours daal mooy yoon yaakaar naa ne am na si droit. ñu ñëw si ñu wax ki ñu wax jo jo technique 2 ñu ni jusqu'au bout ba si cat ay weeram daal la ñu wax si jo tey. waaw jo daal la technique jusqu'au bout de ses maanaam xale la boo xamante ni tey ndaanaan la gis nañ si moom ak xarante ba nga xamante ni tey maanaam jàpp nañ ne moom sax. dañuy bëre loolu la journal bi xamle jour technique nekk champion ndaanaan yaakaar naa ne daal loolu noonu la journal bi andi Omar yow. waaw ñu ngi wax ci Balla Gaye 2 bi ñuy wax ba léegi ñu ci entraînement yi di wane taxawaayam formam daal. formam état physique am Balla Gaye ku ko gis macha allah muscle yaa ngi yaa ngi ñu ngi lii car macha allah mu ngi ci saali tamit ñu ngi gis ay vidéo jamono ji mu ngi ci ay salle de musculation ni ñu koy waxee rek maanaam nee nañ mbër du préparé day pare Balla Gaye yaakaar naa ne moo ngi si dynamique boobu noonu. waaw ñu ñëw si Siteu mi ñuy wax ni Siteu mi si duni di rey boppam. waaw mu ngi ci duni bu si nekkul looloo ko war bu si nekkee looloo ko war parce a bëreel mu ngi si saal yi di entraîné mu ngi ci maaro bi moom Papa Sow di entraîné mel moom la ñuy ñëw ñu ni Papa Sow daal jàpp nañ ni waa parcelle def nañ 100 pour jàppale ko. parcelle def nañ 100 pour jàppale kii di ki nga xamante ni tey moo di Papa Sow loolu la journal bi andiwaat rek yaakaar naa ne daal Papa gars yi war waruñu ko ginnaaw benn benn benn yoon lépp lu gaa yi mën rek maanaam ñoo ngi koy def ngir jàppale ko ngir soutenir ko ngir yokk ko doole si combat bi mu jëblu waaw ñu ñëw si drapeau chef de l'état bi nga xam ne war na am 5 juin ba 7 juin. ñu wax ci wax ci tamit nuyu de la lutte le 22 août. waaw drapeau chef d' état loolu bokk na si li nga xamante ni tey CNG maanaam wax na ko démb si ndaje bi mu amoon di ko amal di di ko jàkkaarloog taskatu xibaar yi muy drapeau chef de l' état bi nga xamante ni tey war nañ ko rek le le le le le 5 ba le 7 juin fële sa Kaolack nag Kaolack Ndangaan bii ba ñoom ñoo ay drapeau chef de l'État mu war jours yoo xamante ni tey Kaolack dina vibrer waaye tamit niveau de la lutte niveau de la lutte wax nañ ci wax nañ tamit ci nombre de licences yi nga xamante ni tey ñoom lañ affilié nombre nombre de licences sans frappe yi nombre de promoteurs yi ba ci nombre de managers yi niveau de la lutte loolu yëpp démb daal Alioune Sall yaatal na ci mu ngi ci biir journal suñu làmb bi ku ko jënd yaakaar ne di nga waaye ba léegi rek foog naan dañuy jàll si record bi. waaw record tey ñuy ñëwaat euh, seen indiwaat ñu Alioune Sarr si waxam ay Yékini Alioune Sarr wax na si Yékini nee na moo Yékini amuñu problème waaye. waaw moo ko yëg ne amuñu problème am loolu laay xamle woon démb rek amul war a nga fa suñu grand si xalimaam moom la Alioune Sarr di waxaat ba léegi rek que ne moom ak yëg ne daal amuñu benn problème woon nañu ko benn signe d'indiscipline tamit. waaw ba léegi Alioune Sarr waxaat na nee na CNG moom du dellu ginnaaw si dara. pour defaraat milieu làmb yi waaw loolu moom loolu la njëkkee le CNG ne reculera devant rien pour assainir le milieu de la lutte loolu yaakaar naa ne Alioune Sarr moom la njëkkee ay kàddoom yaakaar naa ne loolu moom ànd euh, na daal ay coow wala ay question yu bare bëri yoo xamante ni tey gars yi posé woon nañ ko. waaw ci record ba tey Yékini mi ngi wax nee na wax ci xalaatu nit ñi du xalaat li nit ñi xalaat pour wax ko. nee waaw moom Alioune Sarr wax loolu maanaam si kàddu Yékini bi rek ba tey la doon wax rek maanaam que moom du nangu liir si pensé kenn. Abdoulaye Dembélé moo posé woon question boobu noonu mu répondre ko loolu nee moom daal du lu ci passé wu kenn bu dee Abdoulaye Dembélé dafa am Abdoulaye Dembélé dafa am question bu mu bëgg a posé na ko posé bu leer moo tax mu waxee noonu. waaw ba tey mi ngi wax ci làmb ji nit ñi naan làmb ji day suux Alioune Sarr moom nee na làmb ji mi ngi dox bu baax. nee na làmb ji mi ngi dox bu baax def na ko ba génnee démb journal sunu làmb di listé wala di lim ay combat ni tey jot nañu taxaw ci biir journal bi ci agenda journal bi te avec nee na moom Alioune Sarr jàpp na ne c'est comme chaque ne làmb ji sooxe na waaw nee na tamit na mbëri am courage wu di trouver wu ñuy def tournoi annuel. waaw nee na daal maanaam daal si si si si tournoi bi waxoon ba tey rek pour VIP yi daal ne moom la journal bu record andiwaat dane daal dafa bëgg a def chaque année ñu tëgg maanaam tëgg combat yoo xamante ni tey wala tournoi VIP yi ñu mën a xam qui la le waaw nee tamit booy xool milieu làmb ji nee na milieu làmb ji structuré wuñ ko. waaw loolu tamit bokk na si moom maanaam que ne làmb yi milieu bi ba si ba si incident bi amoon keroog li muy xamle mooy que ne moom Alioune Sarr nee na wàcc na si géew bi laajte manager ñaari mbër ñu ne manager ñaari mbër yi ñëwoon muy ñàkk jor ñàkk Alioune Seye mu laajte président activité nee na kenn ñëwul nee na loolu bokk na si li nga xamante ne maanaam moo ngi koy déploré nee na képp kuy kuy war nga mën a ñëw taxaw nekk seen ginnaaw loolu ay waxi Alioune Sarr la. ba pare CNG li ñu bëgg a def tëgg làmb yi nee na fekkee champion yu mag yi pare nañ ñoom pare ñoom tamit pare nañ pour tëgg tournoi annuel bi pour définir roi des arènes. waaw tournoi annuel bi moom loolu la waxaat rek si biir journal Record loolu yaakaar naa ne moom moom moom moom Alioune loolu la andiwaat di si waxaat ba tey tey rek yaakaar naa ne daal loolu moom champion yi dégg nañ ko mais fooguma ne dina yomb bi nee nañ résultat yi fa yi ñu fa am daal neexu leen. pourquoi pas def ay compétition lutte olympique fii dëkk bi puisque dañuy jël fii di yóbbu ay di fële xaalis pour ñu compétir mu ne ma ne lutte olympique dafa commencé daanu parce que zone Casamance rek la xaw a am nee na am na salle bu am Léopold daanaka bëriwul ay pratiquants mais daal ñu ngi jéem a trouver solution ni ñu war a mën a def pour jéem a améliorer olympique bi fii Sénégal. ci wàllum nga xam ni démb seen ñàkk ñëw feeñ na bu baax ki si mel ni ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen ak ñeneen Manga yi ak ñeneen ak ñeneen ba si ba si ki nga xamante ne moo di Abdou Aziz Ndiaye bokk nañ ci li nga xamante ñu ñoom ñoo intégré lii di CNG bi pour dooleel làmb waaye ngir intérêt wu làmb ngir intérêt mbir yi tamit waaye depuis loolu daal gis moom ce sont les grands ce sont les grands absentéistes loolu le journal bi andiwaat Pape ba waaw kon foofu la ñuy yem ak yéen tey li si yéen di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax ni ngeen ñu suivre seen site internet di TV ñun nekkuñu fi lu dul yéen bokkar waaw di nuyu mun naa nuyoo nag di nuyu samay mbokk di nuyu Asmali Sarr sa Tiwaawan doomu ndey kalandoo ñu ngi leen nuyu bu baax di la jox sa wàccu waaye daa daaray wat waaw di nuyu ñëpp rek di bëgg ñëpp bu ñu limee rek du ñu mootal mais ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan si ñoom te nag top ten bi xaar leen ko moo ngi ñëw si kanam lay dix de la semaine ñu leen ko rek ak Lutte TV nee naa leen la di leen jox ba suba incha allah. nga xamante ne moom la ñuy waajal. muy les 1200 prises ñu war a interpeller état la. parce que njëriñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février. place 5-5 lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa